salaamaaleykum Serigne Mbacke Mara yor mbirum euh, communication ci Soldats sans frontières euh, di ziare ñëpp di jotee ziare bi suñu président euh, soxna Aram Diop di ca teg itam mboolem waa Mouride Info ak Mouride TV. Euh, euh, di siyaar itam mbokki diaspora bépp. jërëjëf euh, sëriñ bii ndax kon mën nga ñoo dikkal ci problématique code carte d'identité yi nga xam ne que moom la département Mbacké di am muy code 232 ak 238. waaw loolu sëñ Mbacké maa ngi lay sant bu baax a baax ci invité bi nga ma invité ci seen bureau yi di ma wax loo ci loolu ndax fekkoon na ma it ma amoon yéenay wax ci waaye nag xëy na opportunité bi tey la ko indi dafa am ñoo xam ne sëñ Mbacké ñu baree bare dañoo amoon ay carte d'identité Touba nag euh, dafa nekk dëkk boo xam ne dafa amoon ñaari code code benn bi 232 la woon benn bi 238 232 bi euh, moo doon euh, principal bi ci ndaam 238 bi moo doon secondaire bi loolu nag depuis 1975 ba 95 ñoom ñaar dañoo àndoon mais léegi 238 rek moo fi des 232 bi disparaître na mais 232 bi dafa am ñoo xam ne nii dañ cee amoon ay këyit surtout suñu mbokk immigré yi nga xam ne ñu ngi ci àll bi am ci këyit wut ci carte d'identité wut ci passeport am ci séjour am na ci ñoo xam ne sax dem nañ ba am ci nationalité suñ dellu si waatee Sénégal suñ borom dogal par exemple ñu bëgg a renouveler seen passeport te yóbbuwuñu carte d'identité bu njëkk ba ñu yoroon dañ leen di laaj extrait extrait boobu suñ leen ko laajee suñ koy renouveler soo demee léegi Touba mosquée moo ci nekk Touba mosquée su ci nekkee soo demee policier bi nga xam ne moom mooy saisir document bi day xool code Touba mosquée su xoolee code Touba mosquée 238 la ciy def. dans ce cas 238 bobu su génnee carte d'identité bi nga njëkkoon a yor tam nek 232 euh da fay da fay yàqu su ko defee légui yow nak ce passeport bi nga xamné ni jeex na nga war ko renouveler so démé di ko renouveler dañ lay wax né la yow da nga am ñaari këyit yu bokkut ndax 238 day guen ta fekk 232 nga génnoon su fekkee nak immigré la bo xam yalla dafa dogal moo waroon ñibbi peut-être xeyna 15 jours mo des ci séjour man na am sax séjour euh yàqu donc daal lolu moo tax daal ñu ne nañ ci tirer attention population bi ñuy vérifier bu baax seen carte d'identité yi di ci dem tirer attention euh, euh, collectivité locale bi pour ñoom matuwaay yi ñu ci mën a jël ñu jël ko euh, ba loolu ba na indi jafe-jafe parce que déjà am na ñoo xam ne nii am nañ jafe-jafe boobu parce que seen carte d'identité yi bokkul te loolu indi ay jafe-jafe yu rëy rëy rëy. jërëjëf problématique des jugements surtout ci doomu immigré yi ana lan moo ko sabab. waaw loolu ce n'est pas seulement le département de Mbacké mais c'est tout le Sénégal parce que dafa am benn loi boo xam ne dafa wax ne képp ko am jugement boo xam ne moins de cinq ans nga pour nga déposer carte d'identité jëppal rek nga ko mën a déposer. loolu nag ñi ci gën a am jafe-jafe mooy mbokk immigré yi parce que dafa am mbokk immigré yoo xam ne dañoo dem ba seen doom yi ñu bëgg leen yóbbu à l'étranger xëy na defuñu leen woon déclaration. ñu wuta leen ay jugement jugement bi nag soo ko wutee ba carte d'identité bi génn nga dem fu mel ne Touba wala Thiès wala Kaolack foo mën a dem dañ lay wax ne la il faut que nga wut li ñuy wax euh, euh, euh, extrait de naissance wut copie littérale wut goros waye nak so amé lolou lepp ba paré nak da ngay delluwaat nag ca ca ca ca ca da ngay wat nak jëppal déposer fa lolou serigne mbacké c'est une euh, euh, c'est une question pertinente ndax waral na yokuna lolou loolu ñuy wax immigration clandestine parce que nit ki nga xam ne dafa bëgg déposer carte d'identité parce que dafa am jugement déposer ko mu génn mu bëgg passeport ta passeport bobu sun borom dogal mënu ko am nit ki moom su fekkee dafa bëgg jaar fenn su fa buntu jàllul lu ci baree bari dañuy yéeg wala ñu bëtt donte jaaduwul donc ñoo ngi ñaan di alerter euh, gouvernement bi comme nit ki am na jugement jugement bi am extrait am copie littérale nga wut loo ko goros mu am ko yaakaar naa war nañoo mën a def benn loi boo xam ne au moins dëkk ba la gën a jege war nga fa mën a déposer passeport mais tel n'est pas le cas ki jóge Tambacounda Dakar lay dem ki jóge Kidira ki jóge fu mën a doon ci àdduna rek Dakar lay dem te jëppal la koy amee donc yaakaar naa war nañ cee seen attention pour lu mel noonu ñu jóg ci. jërëjëf ndax kon man nga ñu ñëw ñu ne l'état civil de proximité mën nañ ko appliquer pour ñu changer le décret de 2017. wa mais xam nga Serigne Mbacké yow dafa am question yow may poser yo xam man dama xamul sax yow fan nga ko fan nga ko jëlee euh, état civil de de de de de proximité dafa jaadu parce que xolé une ville comme Touba avec une population de 2 800 000 personnes ñu bëgg na nit ñëpp nañuy dem ci commune Touba di wuti keuyit loolu jaadu na kon légui ñu décentraliser ko soo demee Dakar tey hôpitaux la majeure partie hôpitaux yëpp dañuy am euh, euh, état civil so quartier yëpp dañ koy am mais Touba avec une population de 2 millions 800 000 personnes ñu nekk ci commune bi ils sont en train de faire un travail extraordinaire parce que soo demee 32 agents wala 33 agents ñu bëgg gérer par exemple 2 millions 800 000 personnes loolu jaaduwul te itam loolu dafay décourager nit ñi ci ñuy déclarer ñàkk gogu déclarer dañuy dem mu dañuy def ay jugement té kenn ko na xamné déclaration mo gën lool nak pour ñu éviter ko il faut que ñu def euh, euh, l'état civil de proximité ñu jóg ci nu gëna gën a gaawee yaakaar suñ ko défé jafé jafé wa waa Touba di am mën naa wàññi ko. ñi nga xamné ne dañoo amoon këyit ci 1992 té yalla dogal këyit yi par exemple lu ci bari registre yi yàqu na jaadu na ñu wax euh, gouverneur ñu créer commission bi nga xamné moy commission de reconstitution au niveau de la gouvernance nga xamné ne ki amoon këyit te këyitam reer commission bobu su ca demee su len procureur euh, euh, de la république saisiré ñom ñolay défar reconstitution document bi mais commission bobu ba légui ba ba boog 15 jours ci ginnaaw yëgu mën taxawna té su taxawul ñi nga xam ne seen i kayit yàqu am jafé jafé parce que vraiment mi ngi indi jafé jafé yo xam dal seigne sëñ ñu ngi len di sant di sant euh, Mouride TV ak Mouride Info